maanaam nañu nañu salaat yaakaar yi ci ci ci làngidu wolof xam naa bu dee tradition bi baax na loolu bi mu ko amalee li mu ci jublu mooy réew mii di réewum Gabon boo fi bëggee taxawal lu toll nii nga xam ne ay nit ngay jëlee ci Sénégal ak fu ne di fi indi kon da ngaa war a mën a ay kayit yoo xam ne dina leen mën a may visa yuñ fi duggee buñ bëggee dox ci réew mi fu ñu bëgg a dem dinañ fa mën a dem ci jàmm ndax kenn ku ne xam ne réew mi réew mu jafe woon a ñëw la mu mu jafee dugg la su ko defee loolee nag moom sëñ Fall mu dox ci taxawal ONG boobu déposé ko ci ministre de ba yàlla dogal na kayit yooyu nga xam ne ci la sukkandiku woon def ko ci lam mu doon wax nañ fondement sëñ Touba loo xam ne lu nit mën a andi bu ñëwee da ko ci teg mu fondement ba attan ko ndax yoonu murit sëñ Modou saa Mbacké moo ko fondement waaye tey jii fii yoon wi ak si sëñ Modou saa bàyyi ko fi woon comme nag nee na lépp sëñ Touba moo sut fanu doomu aadama kon ñun nañ ko liggéey liggéey bu dëgër dogal na nag. kayit yooyu mu defaroon moom sëñ Fallou taxawu ko xam le ni projet wu karawaanu Mayumba du jog tukki Mayumba de mooy jog topp jaar-jaari sëñ Touba fépp sëñ bi newoon fu ne ñu defal ko fa loo xam ne ku fa demati xam ni fii sëñ bi newoon na fi mu ni nag moom sëñ Fallou Bousso fas yéene na amal bisub soxna Jaara Bousso ca Mayumba boo xam ne dina àndandoo ak centre culturel islamique boo xam ni dana am daara am ay jullikaay ba ku fa demati fañ doon simpee bant sëñ tubaaya nga fekk fa sooroor yu fa sax yu fa dootul jóg loolu nag ci loolu ci la karawaan bi juddoo mu taxawal ko defal ko ay membre yóbbu ko ci Seex Sidi Muxtaar ànd ko ak sëñ Seexu naa mais bi mu demee sëñ Seex Sidi rafet lu ko xamal ko ni ko dinaa ci jiital sama alal far yàlla dogal at mi nga xam ne ci lañ war a waañ ngir bëgg a amal première taxawaay yi mu nekk mille 2017 at mooma la sëñ Fall bu sa làqu bu ko defee at mooma nag ci lañ def première édition bi nga xam ne dañ ni nam ko waxee woon moom ni lu ne moo sut fanu doom aadama ci lañ daal di jóg woote benn caravane boo xam dañ ko yemale ci biir Gabon ñu nekk Gabon ñëpp ànd dem ba Mayomba dem woo meeru dëkk ba mu toog ñu introduire benn dossier laaj ko suuf ci turu sañ Touba ndax Gabon domaine foncier muy mbirum suuf dañ ni nationaux yi rek ñoo ci am droit waaye genn gan ñëw amoo sañ-sañu dem ci benn commune bind fa leet ne damaa bëgg ñu may ma suuf loolu Gabon nanguwuñ ko waaye comme ONG bi nag da koo def ci turu sëñ Touba te ñu ko yor ñëpp ay nationalité lañ man mii kenn laajte te sëñ bu Bousso moo ñu wutal nationalité yooyu kon ak ñu mbooloo mu baree bari mu ñoom sëñ mu Moussa ak ñi ñu àndal liggéey bi yëpp kon loola moo tax nag ñu introduire kayit yoo xam ni ca mairie wu Mayomba ak Lambaréné dina war a may ca Mayomba lu mat onze hectares yoo xam ne projet sëñ Touba moom dina ca mën a am loolu daal mooy li nga xam ne moo ne ci ginnaaw tukki bi. boole ko ci imaam yi Gabon yi. ba tey ji mu dem ba jëmm jamono mu dellusiwaat tey yor yor culture karawaanu Mayumba bi ñëwaat fii ba wëcc sëñ Mountakha kon yaakaar naa ni ñun am na fu ñu ko séentu woon sax te liggéeyam sëñ bu Bousso romb ko kon tey waaw kon bu ko defee loolee nag nga xam ne moom la ministère woon sëñ bu so ci taxawaayam ak digganteem ak réew mi nee naa ko sant Bousso ku fi doon ci lii nag dama koy wax rek ngir ñu gën a xam ndax moom 1995 daa ñibbi woon senegal définitive ne day dellu dootu tukki ndax yàgg naa tukki moom sëñ bu so bi mu demee loolu nag far yàlla dogal jamono ji sëñ Ablaat fi ne ba mu demee sëñ Ablaat di ko fàllu dellul Gabon toog fa ndax daa am liggéey bu la sëñ Tuubaa di liggéeyloo. 80 85 1985 mu de mu ni ko nag fàllu boo demee ci Gabon googu liggéey ba dina des dina métti waaye wallaay asi maa ngi lay ñaan lu mitti métti bul fayantoo te bul jàmbat. xamal ko nag ni ko. na la leer ni xam na sa jëmm ji loo xam ne yow xamoo ko ci sa bopp kon loolu bu ko delloosee fii nee na moom toog na fi at yu yàgg ba ay quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize ci la ko sañ Mourtala laa a joxe liggéey bi nee na moom kon xamul toog na fi lu yàgg di xaar liggéey boobu moom fii ci Gabon sëñ laa woo ko woo dëkk bépp ñu daje mun leen fàllu mi jiital naa ko ci seen kanam ngeen ànd ak moom ndax ñu ngi wooteel sëñ Touba ci Amérique noonu la ko waxee ak Italie fépp te fii la waroon na njëkkee ndax fii la sëñ bi doon liggéey kon loolee sëñ bu so bi mu ko taxawalee ci réew mi maanaam Mayumba dañ koo njëkk a dig ni dañ koy jox 4 hectares moom nag kuréel vision la mu gàntal ni leen soxlawuma 4 hectares ndax kuy laajal sëñ tubaa loo xam da nga caa bëgg def daluwaayu sëñ Touba war caa def ay jànguwaay war caa def ay kër yooyu yëpp ak centre culturel islamique da ngaa war a laaj lu bari mu laaj leen 11 hectares ñu ne ko 11 hectares nag fi nga ko bëgg a laaj xaju fi. kon dañuy bàyyi bañ defaraat plan cadastral bi ñu door a seet fu leen koy jox ndax bu leen ko joxee fenn bu ëllëgee mën naa am dañ koy jëlaat kon loola moom ak fàggutee fam la woon bi nga xam ne yàlla dogal na nag moom sëñ bi mu nekk ak ñoom ci 4 hectares ak 11 hectares muy muy muy 2017 boobu moom ci la làqu at moomu nag bi ñuy dem bi ñuy dellu maa yomba lañ yóbbaale nag demande ba nga xam ne moom la defoon muy 11 hectares joxewaat ko ca meer ba fa nekk nga xam ne mooy maire sortant bi muy Castanol déposé ko fa maire bi bi mu dikkee moom fa la fekk dossier ba bi yàlla dogalee nag édition bii mujj nga xam ni Covid bi moo ko jiitu muy édition deux mille dix neuf maire bii fa nekk nag nga xam ni moom mooy Georges Pontalier sëñ Koso Mbakke ñëw fi ñu toog ñu def audience mu wane ni gis na dossier bi bi ñu ubbi ma Masaalikul naan sëñ Koso dafa wax maire Dakar mu bind ay lettres invitation ñoom ñu ñëw fi Libreville ba ànd ak ñoom ambassade ñu dem Sénégal. fekkee ji nañ ubbi ubbite Masaalikul naan maire boobu bi yàlla dogalee mu ñibbisi nag moom ñibbisi waale na daanaka doon ab murid ndax lu yàgg a yàgg boo demee ci STM ak fépp jumaay Touba ak yooyu dong la ci wane tam moom du ab jullit waaye nee na man je suis un muri de cœur moom it damaa bëgg sëñ Touba ñoom ñëpp a koy wax. loolu nag bi mu amee moo tax barki dem bi ñu demee maay ba ci waajtaay bi mu ànd ak ñun ba joxoon ñu pàkk ba sës ca maire bi ni jox na ko sëñ Touba nee na prochain conseil euh, bi nga xam ne moom la municipal bi ñu war a def. nee na bu ñëwee dina def acte bi teg ko ci yoon loxo yi mu waaye nee na loola nee na loola bokkul ak hectare yañ ko laajoon loolu da koo laaj ngir ñu def ko siège murid yi ca biir maa Mayomba waaye onze hectares yañ bindoon mi ngi xool fan la labbe yi seen domaine yam muy seen seen seen seen occupation bi nga xam ne ñoom amal nañ ko titre foncier fu mu yem nee na ñun ñoo fay dale ba ba ba suñu onze hectares mat waaw kon bu ko defee daal loolu Euh, maanaam mën naa wax di daal ñun doonu ci dara la sañ bi fàgg woon daal moom mooy continuer di wéy noonu di yaatu ñun xaj na ñun dem mott di rek lañ ci doon. liggéey bi bu tollee fii bay na ci euh, waaru mag a mag te moom ko waxee rek eh, liggéey Sëriñ Tuubaa rek moo ko indiwoon ci réew mi mm. yaakaar naa liggéeyal la sëriñ bi ba wàcc na mm. te it waxoon na ne mm. eh, bu ma demee ci kanam Sëriñ waa de dinaa leen seere si kanam Sëriñ Tuubaa de Sëriñ Tuubaa liggéey na seen nangu na seen liggéey kon lii ngay wax am na solo lool ñoo ngi lay sant di la gërëm eh, bëgg nañ nga dikkal ñu tuuti ci lan ngeen programme ci kër gi nekk Mayumba ak nan ngeen di def ba kër gi def ci seen loxo ndax it léeg-léeg nga gis ay kër yoo xam ne si xëy na sëriñ bi dañ ko ko fi jox hmm. waaye nit ñi day mel ne dañ koy xaw a sàggane ba mujj bu mujj fenn waaw yéen lan ngeen programme ci kër gi ci lu gàtt mooy kër gi moom noppi na ba pare sëñ alaaji kër gi sëñ Tuubaa gee jamaayam noppi na ba pare ndax am na murid yoo xam ne fii bis boo xam ne maire bi def na acte bi ca guddi googa mayamb la ñuy fanaan ñoom waaw ndax li tax may wax nii mooy ñun yàgg moom xam nañ ni ci 1995 sëñ Moutala borom réew mi da ko joxoon daf ko joxoon vingt hectares fii sës ci aéroport bi soriwut vingt hectares yooyu ñun ñi bokk nañ ñu ànd ak sëñ Moutala mu teg fa aw xeer deux mille mu jox ko kër gu mag ci digg yomba ñu ànd ak ministre de l'intérieur borom réew mi aal ko avion sëñ Fall Bousso ak comité bi mu àndal loué ñaari avion ñu wàcc Mayomba mu teg fa aw xeer ñaari kër yooyu yëpp bu ci ne génn na loxoy murid yi ndax ñàkk faa def dal su ko defee nag kon loolu soo leen gisee mu tuddee ONG bi renaissance de l'espoir nañ xam ni du hasard lañ ñàkkoon tam rëccu ñu loolu la bëgg ñu jotuwaat ko te buñ ko dabee dinañ ko jàpp bam sax ci loxo sëñ Tuubaa ba faw ndax gis naa ñoo xam ne fii jaayante nañ ni ñoom la cay dem pare nañ ci ay ci ay ay ay toni ay lu nekk daal moom daal xam naa ni li fi des daal mooy yaakaar naa mar nañ ñu woon ñu ni ñu fii sëñ Tuubaa ko moom daal bañ fanaan maa yomb daal sëñ Alaaji euh, incha allah incha allah yu ñëwee ci moom ak ñi nekk fii ci Sénégal wala bitim réew te am fi kër wala villa wala immeuble wala appartement wala ay bureau wala magasin te bëgg ku leen ko yoreel wala mu leen koy luyeel ci ay anam yu set yu sell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 téléphone 77 394 73 73 agence Techno Habitat mooy ca Habitat offert